mooykat yàlla yi ci mbindeef yépp xaalu safihun li xobbi xaaliqi maliki walam akun lil baraaya ashtaki darari mu ni dañoo wax ne dama dese ngir bëgg gu ma bëgg sama borom te duma fab sama lorit di ko jàmbat mbindeef yi xaalu safihun li kaw ni lam axaf ahadan dañoo wax dama dese ngir li ma ragalut kenn wa ma rajawtu siwa rahmaani dil xadr te yaakaaruma kenn kudul yàlla mi aj yërame ji te yorub dogal xaalu safihun li tafwidi ila maliki amri an il kawni fii safwi wa fii kadri nenañ dama dese ngir joyal gu ma jore joyal sama mbir jox ko suñ borom wan gannaaw mbindee fii ci jamono buy sell mooy buy neex wa fii kadri ak ci jamono buy neex te mooy buy naqari beneen way bi ci des mooy way wi àggul nag dem na ba ni in safaho niya fi wirdin axastu bihi li cheikhi siidiya cheikhi l badiyu wal xadari fala akunu rashidan misla rushdihimu fa sawfa yamtaazu yowman anzamu siiri wax na ne muy waxee fekkee ne yoo wax ne dama dese ngir wirdu ma yor muy wirdu Cheikh Sidiya moom mi nga xam ne mooy sëriñu mm, taax yi di sëriñu kaw bi seen xeetu njubin woowu ñu jàpp mooy ak njub duma ko jub te bis a ngi ñëw ca kanam boo xam ni eh, yi gën a jub yi gën a màgg dana leer ñépp bay di ci des mooy fi muy waxee ne xaalu li erkan li abwaabi salaatini taxus jawaisa toxni kullama xiini fa xultu xasbi rabbi bi bihi walastu raadiya gayra al ilmi wa diin mun ñu ngi may wax ni ma jàng jëm ci bunti buur yi kon danga am ay may yu kawe yoo xam dana la doy waxtu wu ne waaye ma ni leen sama borom doy na ma te doyloo naa ko te man di gërëm ma lenn lu dul xam-xam ak diine wax na ne anna ufawidu ahwaali liman hajasu wax na ne in kuntu da watarin aw kuntu da xasanin daawtu dal ayni qabla rai wa siini mooy su ma amee aajo mbaa ma am njàqare yàlla lay woo fa huwa alladi fa huwa almuciinu alladi laa shay'a yucjizuhu wa huwa almukawinu maa shaa aya takwini mooy aji dimbalee ji nga xam ni dara tëlu dara lotluwu ko te mooy ki nga xam ni lu mu bëgg a sosit dana ko sos mu nekk na ko bëgg wax na ban leen anne ufawidu ahwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajisal masaakin nan laay fa ba samay mbir di ko joyal ci ñoo xam ni seen mbiri bopp sax tëna leen xanaa dafay def loolu sëriñ bi ginnaaw bu mamar antisali làqoo des na ci digal loolu yi mu ko digaloon atakus lëf ñi ko topp ñépp booba dañ doon sàkku xam-xam rek moom itam mu doon jàngalekat bu set wecc jàngalekatu kese waaye loolu lépp nag mu ngi ànd ak diir xam-xami niti tasawuf amuk cofeel lool ci futtiku won gannaaw àdduna ak beru am cofeel lool ci siyaaxata mooy dox wër nit yàlla yi na ko suufi yu jëkk yi daan defe isaa daana xeet xeetal ci seeni waxin léeg mu wax loo xam ni day junj rek ngir mi mu bëgg a junj topp alluwa ba mu àgg mu ne alxuraan day nga jàng ko ba mën ko bind doo ko gis lu am solo la waaye nag fexe ba bu malawul ala dee dee dee deeyante nga dégg ko di moom itam lu am solo la da di junju tasawuf noonu la doxee ñoom ab ci junju ba ba itte ji kawee ba not ko nag ba mënatu koo nëbb fuur duusu daal ba tuuru des ci nag mu daal di taxaw nag daldi la la ne woon teg mu yëngal ko daldi woote wax mbiram bu leer ba mu wootee it am na ñu ko topp aju ci moom nangoo tarbiyewu waaw yéen ñi ci desit ba mu wootee euh, woote boo xam ne ba tey forcé waaye wax waxin la woo xam ne am na ñu ko leeral leeral na ko leeral na li mu bëgg am ñu ko topp nangu koo tarbiyewu am ñoo xam ni dañ faa des rek ngir jàng waaye ba jamono boobu it mu ngi jihaad ak bakkanam jihaad ju tar jihaad jiit jihaatut ngir di séentu ay maqaama yum ci war a amee waaye suñu borom moo ko ko ilhaam bëggloo ko ko saxal ko ci ab xolam wirdu xaadir bi nga ko jële woon ci way juram Mamour Anta Sali ba mu demee dema dema dem ba duusu nag ba tuur bu mënatu ñàkk nag mu leeral la mu bëgg nag daal di woote jam dajale mboolem ña fa nekkoon ci ay jàngkat daal di jóg waxtaa wax ak ñoom akuk dogu gam dogu nag ni leen nag léegi li ma bëgg ngeen xam ko daal mooy képp ku àndoon ak ñun ngir xamlu na seeti fu mu xamloo ji na dem seeti ku ko jàngal ku àndoon ak ñun ngirum jàng képp demal seeti ku la jàngal te seeti fu la neex nga dem fa koo xam nag dafa bëgg li nu bëgg na dox sunu doxin te taxaw ci sunu mbir suñuy su suñuy suñuy digle suñuy tere mooy na ñëw topp si ma nag te diglu ma te wàccandiku foofu nag ñu daal di baj baji baj baj ju taratar ñenn ñi daal di ni kon ñun ñoo ngi dem ñenn ñi des fi am ñoo xam ne dañuy tere seenu xarit dem naan leen déet bu leen dem ëpp naa def ñenn ña di tere seeni xarit toog naan leen fii bu ngeen fi toogee jëmu leen fenn waaye werante yee ba muy bari lépp yit sëñ baa ngi ni teg mu ngi noppi ni cell waxu dara eh, dogu yit ci lim dogu déng déngiwu ci ba mbir ma fa mujj mooy ñu bari dañoo dem ñu néew des fa bi mu demee nag ba ñii dëppook moom dëppook moom ci ñi nangoo ànd ak moom ci lim nekk mu daldi yéeg ak ñoom nag jàll bàyyi xaalu jàngale jëm dem ci xaalu tarbiya ak tarqiya sëñ ma Lamine nee am na ci sa ci kilifa yi ku ko wax ku ku doyloo ku ko wax ni ko sëriñ bi nee na ko yonente bi ci boppam moo waqanteeg moom ni ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars ni ko yonente moom ni ko yaral sa àndandoo yi ci itte te bu leen yar ci am njàng gis yonente bi ak wax ak yonente bi ak jële ci yonente bi dana ñëw ci kanam tuuti ak li ci boroom xam-xam yi wax ak nattablekat ya la ñu cay waaye li ca wér rek danañ ko indi incha allah lii ko sëriñ bi nettali sëñ mat la naan lii ma sëriñ boobu nettali ànd ak nag li mu leeral ci ay xasidaam muy wamina ajaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu bil awliyaa ila alqiyaamati wa kullun waliya sunnatahu wa saanaha an bidaaci tabshiiruhu xadimahu bi fasdaaci waaw loolu Sëriñ wax ni bokk na ci kiimaani yonente bi sallallahu mi nga xam ni moo leeral suuf si ci wàllu ba bis di taxaw wali yépp kenn ku ne féetewoo sunna yonte bi di ko ñoŋal ci ay biddaa bokku na ci ki kiimaan yonte boobu bégal gum bégal ki koy liggéeyal ni ko fasda fasda bi maa tuumar amarahu salla alayhi llahu fi l ali wa bi an yuallima al muridina wa man yaqbalu minhu nusha min ahli zaman mun yooyu sallallahu alayhi wa sallam digal na ko mu xamal murid yi ak ku nangu ak laabire ci moom ci waa jamono fasdaa nag lii max maanaam mooy yàlla dafa digal yonent bi mu leeral woote ba mu daan woote ca màkk te di ko woote ci suuf daf koo digal mu woote ko ca kaw bu dee ci àqi Sëriñ Tuubaa nag fasdaa jooji dañ koo digal mu woo nit ñi ñu wéeru ci moom ak jële ci moom yoon wi nga xam ne moom la ko suñu borom baaxee yenkiwal ko ko mu di ci jubbanti nit ñi di leen ci génne di leen woon yoon woo xam ne yiwu àdduna ak alaaxira mën na caa génne noonu la sëriñ bi sooboo ànd ak ñi ko topp di leen tarbiya jaarale leen ci yoonu tàggatu ci sikar ak dëddu àdduna ak liggéeyal nit ñu baax ñépp nag ak liggéeyal mbooleem jullit yi liggéeyal goo xam ne liggéey méngoo doon ak liggéeyal leen ci isaar te mooy gënal gënal leen ci sa jëme bopp moo tax ab murit foo ko fekk bu murit ga déggoo ci moom xool ba day set wecc dara du ci nekk lu dul yàlla te kum gis ku ne day jàpp ni kookee ko gën ku ne da ngay xool yàlla ci sa morom loolu bu ko ñëpp dundoon jàmm ju daj kapp doon ci àdduna bi moo tax bi mu sooboo loolu ñee nga xam ni xamoon nañu as lëf ci xam-xami tasawuf ak meloy tasawuf dañ leen doon xool xooliinu yéem ak respe waaye lenn ci boroom xam-xam yi di leen woyafal di wax ni ñun wenn yoon wu jëm ci yàlla wudul li ñu nekk xamuñu ko muy jàng ak jàngale waaye fekk na euh, lu xar ci la nekk ca suufu jàng ak jàngale te mooy jikko fexe ba jikko rafet noonu la sëriñ bi continuer amul benn jafe-jafe digganteem ak kenn nag gannaaw bu fi woy juróom jógee problème bi jëkk am daal mooy ginnaaw bu Ibrahima Koddu Jóob jébbuloo rakki Lat Joor ba noppi nag rakki Lat Joor la doomu ndeyam la ba noppi nag bokk ci dag yi sësuñ ci moom kàngam yi ñu ko daan jàppale bi mu ci sëñ bi te fekk ne kilifa la woon ca ñooñe bokkoon ca jàmbaar bokkoon ci mm, doonoon ko woomal sax nag nga xam ni amoon na cër bu mag ci màng mañ jëloon ci xareb Samba Sadio Samba Sadio ab dëkk la bu nekk ci penku Njàmbur digganteem ak Jolof ci la xare boobu yi xewe woon ahmadu seexu ba moo jóge woon fuuta ñëw déclaré jihaad ci ñoom gannaaw buñ eh, doonee ay jullit nag yuy jullee ko war la déclaré jihaad yàlla xam la mu jublu woon a woote waaye gannaaw bu ñuy jullee di woor daal la déclaré jihaad ci ñoom digganteem la xewe woon ak digganteem ak Lat Joor la xare bi xewe woon waaye Lat Joor it eh, tubaab yi jàppale ko ndax booba eh, dañoo jàmm dafa dox seen diggante booba mu ko jàppalee ñu xeex mu not sëriñ boobu yi muy ahmadu seexu rey ko armab Lat Joor jële ca màng mu bari alal ju bare bare ak i jaam waaye mboolem ñan jàppoon ci ay jaam nag waa réew mii la muy diggante jolof ak fuuta ak kajoor jolof ak fuuta ak kajoor ñan ci jàpp ñëpp ñooñu képp lañ ay jullit lañ nag bi mu leen jàppee moom buur bi muy Lat Joor dafa laaj ndax mënees na leen a def ay jaam lenn ci boroom xam-xam yi na wax dagana la ko ne ko mënees na leen def ay jaam ndi ngir sëriñ bii di xare muy Ahmadou Seexu dafa woote ni ab yonent la kon léegi deretam daggan na ñu rey ko daggan na it ñu lekk lañ mànge ci moom ndax doonatul ab jullit ñu wéyal loolu yi waaye nag li mooy woote gum woote woon ak nubu woomam saxut fen gisuñ ci benn dalil buy tegtale ni dafa woote woon ni ab yonante la bi Ibrahima Koddu Jóob moom yi jébbuloo ci sëriñ bi sëriñ bi daf ko wax ne ko mbooleem koo ci koo ci jële woon ci jaam bu bàyyeeku woon foofee na ko bàyyi mu dem ndax du ñuy jaam alal joo ci jële woon na dellu léegi nag bi mu delloo jaam ya lam ca amewoon mu set ca Lat Joor ak ñam àndal dañoo gis ni lii sëriñ bi digal Ibrahima Kodd mi dafa mel ni dafa féeri seen fatwa boobu ñu amoon xam-xam bañ jàppoon daal lii dafa dàqoon teg loolu ngir ñoom lañ ubbee woon mooy ni dagan nañu jaamu leen ñu mere ko dag yi fexe ba dajaloo ci kanamu Lat fexe ba woo fa Ibrahima Kodd moom mu teew ñu wax ko ci kanamu Lat Joor ne ko yow ana lu waral nga ànd ak say moroom nekk ci ndabul teraanga nga jekki-jekki ni wëlbét wan leen ginnaaw doyluwoo ci doyluwoo jog gi doyluwoo jóg gi waaye dangaa tibb suuf xëpp ko ca ndab la mun leen waaw weña ma sarax mani bërit suuf si xëpp ci seen kaw waaye jubluwuma ko mu mel ni saraxu weñ woowu lim jublu mooy leerug islaam gi dugg ci xolam rek la jubloo wax la jubloo jàppe ndax noonu la lay noonu lay deme maanaam bu la car fal rek fokk nga soppe aw doxin fokk nga soppe aw toogin ñu xam ni li mu wax dëgg la sëriñ bi nag moom Lat di ko woolu ndax dañ ko ne danga war a woolu sëñ bi rek moom itam laaj ko ba xam lii mag ñi àtte woon di ay boroomi xam-xam lu tax mu firi ko ak fa mu ko teg nga wax ko ci kanam boroom xam-xam yi ba xam ko teg di woolu sëriñ bi ci ak ñeewante te ndànk-ndànk rek woowu ko ci force waaye da koy woolu ndànk-ndànk di ko bind bataaxel waaye sëñ bi diggantal bu ko bindee bataaxal mu benn bataaxal tontu ko bu yónnee ndaw mu wax ak moom mu yabalaat ndaw li waxaat moom ni ko nekku nanga benn bis mu wax euh, ndaw li Lat Joor yéen ne ko boo demee ne ko dama ruus malaaka yàlla yi dama gis may dox jëm ci buur bu dul yàlla sëñ Mate Lamine mi ngi nettali ni murit bu ñuy wax sëriñ aadama Sàll ci ñi jëkkoon a topp sëriñ bi ci waa Jolof ci la bokk wax na ne bataaxel bi mujje dox diggante sëriñ bi ak Lat moo ko yóbbu nee na sëriñ mi ngi ci bind nii leen muhammad ibnu maslama di radiyallahu anhu wax na ni boroom xam-xam bu taxaw ci buntu kër buur mi ngi mel ni woñ weñ wu tong ci kaw i bi mu àndee bataaxel bi Lat Joor jox ko xaadu yi ma jaxate boobu moo doon mufti bi nga xam ne moo joxe woon xam-xam bee ñu weesu xam-xamam ni mën si na jaamuloo xaadu yi ba mu jàngee bataaxel bi dafa déclaré istirja mooy ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ca kaw te ni e laaj jot ne ko lu mu doon mu ne ko waaye lii koy jubluwu la man mii la jublu mu ne ko waaye nag te diggante yàlla wax ma li mu doon xaad yi ne ko dafa wax ne boroom xam-xam bu nekk ci buntu kër buur mi ngi mel ni weñ wu toŋ ci kaw xeet buntu buur mi ngi mel ni weñ wu ci kaw xeet Eh, Lat Joor ne ko yow mbir mi ci man mi la gën a tarete ndax yow la jàppe ngay weñ wi waaye man mi kon maay la ca des daal di laaj xaar yi ni ko waaye lu ci sa xalaat xaar di ni ko man li ma gis mooy nga bàyyi ko ñu bàyyi ko ndax notanteeg moom dansé la ndax bu la notee ak kaweem ak kawe ak kaweem lay doon moom te yow bu boobaa danga ci gën a suufe ci àddina bokk bu la ci ñi gën a kawe ci àddina bi lay bokk yow da bokk ci ñi gën a suufe ci way suufe yi te jot naa ne bu ngeen notante dana la not nag nee na Lat Joor ne ko wax nga dëgg ndax ab baykat mën naa fekk ci ay toolam ab pàkk boo xam ne du nooy ba mu mën koo rijji te du ko saxalal dara nee na mu ne ko waaw nee na xaadi ne ko waaw nee na Lat Joor ne kon nag nan ko jàppe muy pàkk boobu rek nan ko jàppe muy jànj boobu nga xam daa nekk ci biir tool bi kenn mënu ko rijji ba mokk te kenn mënu ko bay mu saxalal dara sëñ Mët Lamin nee na mbir mi ba mu jeexee ci noonu yàlla dafa àtte nag benn bis bu Lat Joor tukki ànd ak xaadi yi ma jaxate moom yi ñu wàcc ci ab dëkk bu jege fii sëriñ bi nekk bi sëñ bi déggee ni xaadi yi mi ngi ànd ak Lat Joor ñëw fii mu daldi jóg am mbégte lool ci nuy ji xaadi yi ngir jokk ko jokk gi ngir ñaari mbir benn bi mooy xaadi yi ab sëriñam la ci wàllu li boroom xam-xam yi wax ni ku la xamal benn araf képp sa kilifa la te am na tuuti ci xam-xamu naxwu lum jàng ci moom ñaareel bi xaadi xaritu baayam la woon Omar Ad Sale kon mu war ko delloo njëkk yi ngir loolu jokk ko ngir xaritoo gi mu xaritoonu baayam ndax eh, yonte bi ne na bokk na ci njëkk ji gën a doon ci njëkk nit ki di eh, doxuk bokk digganteem ak soppee way juram soppee baayam muy loolu ci ak topp bo topp way jur la bokk bokk na ci topp way jur ngay xool ñam xaritooloon nga di leen jokk bi mu ñëwee ba fekk leen ñu toog ci benn laltaay mu nuyu leen wor worma daldi toog ci suuf tànkam nag tegu ko ci tappi ba daal sax tuuti am fa ab diir daal di leeral qaadi yi ni ko damaa ñëw rek ngir nuyu la nuyu la képp moo tax jóg bi mu leeralee loolu nag ah, Lat xame na ci ni li mu jubloo leeral mooy bëgg ñu xam ni moom mii taxu koo jóg waaye Lat Joor daal di wax qaadi yi ni ko waaw mbir moom war nañ caa wax ak moom ndax yow li nga ubbee woon moom daf ko firi woon li nga waxoon daf ko dindi woon bëggoon nañoo dajeek moom ab jataay mënuñ ko am léegi jataay bi am na mi ngi nii kon wax ceeg moom nee na ni ko waaw man maa waxoon ni Ahmadou Cheikh dafa woote ak nubuwa ci lool yi la teg xare bi mu doon xare ak nit ñi ba tax na deretam dagan na dagan na it ñu lekk lañ jële ci moom dagan na it ñu jaamloo ñañ ci jàppe nee na sëñ bi noppi mbooloo mi noppi ab diir nee na sëñ bi wax xaadi ni ko ndax dangaa wax ngir ma tontu la ndax xaadi ni ko waaw mais wax kay waxuma waxuma loolu la ngir bëgg nga tontu nee sëñ bi ko waaye digal nga ma tontu am naa ci ndigal xaadi ko waaw am nga ci ndigal di naa la nga tontu sëñ bi ni ko kan mooy sa seere ci ne Ahmadou Seexu dafa woote woon ak nubuwa xaadi ni ko waa Kajoor sëñ bi ni ko waa Kajoor ñooy ay noonam di xuloog moom di xareeg moom danga nangu seen seere ci moom xaade ne ko déedéet waaye waa Samba Sadio ñoo ko wax waa Samba Sadio fa nga xam ne fa la xare ba xewe woon ñoom ñoo ko wax sëñ bi ne ko waa Samba Sadio kuréel yi dañ leen a jóge penkook soow fitna ji xewee fa ñoom ñoom yëguñ ku leen xamal ni kii woote na ak nubuwa xaade ni cell mbooloo mi ni cell ab diir ginnaaw bi xaade yi wax sëriñ bi ni ko doom danu laa tegtaloon buur ba nga jiitu nu fa kon nag maa ngi lay ndokkeel ñu daal tàggoo foofu la pënd ba tasaaroo loolu mooy li sëriñ Mat Lamin nett ci mbirum xarib Sàmba Saajo ak la ca am sëriñ Bachiru ak sëriñ Mat Lamin ne dëppoo nañu ci nettali li bi tuuti ak juyo rek moo ci am goo xam ne juyo ga du mënees na ko leeral du ak juyo du juyoo gu am solo euh, ndax fi sëñ Mat Lamin waxee ni Lat dafa diisoo ak yi ma jaxate ci mbirum sëriñ bi ci mbirum sëriñ bi bi mu firee fatwa boobu foofu sëñ Mat Lamin daa wax ni euh, Lat Joor dafa diisoo ak yi laaj ko lu ciy pexe xaadi xamal ko ne ko li ma xam mooy boo notanteeg moom mu not la kon ñàkk bàyyee moo gën nañ ko jàppe ni ab jaañi bu nekk ci biiru tool rek bañ jàppee ko noonu sëriñ Bachiru bi muy nettali dafa wax ne lenn ci surga yi lenn ci dag yi ñoo ko wax ni ko kii daal boo sàkkul ci moom pexe boo wutul dana fi def lu ëpp lii ma wax ni ñaar yooyu mën nañoo ànd ndax xaada yi ci xam-xamam lee rek la war a mën a tontu ndax lee mooy xel mu rafet moo dëppoo it moo tolloo it ak euh, qualité xaada yi xalaat bu rafet boobu waaye xaada yi mën naa wax lee sëñ Madu Lamin jàpp la waaye lii sëriñ Bachir wax ne lenn ci dag yi ñoo ko wax ne ko léegi dangaa war a dal ci kawam sàkk ci moom pexe ba Lat Joor daa mujj bind xupp sëriñ bi ba mu ko xuppee sëñ bi ni leen régalu maa jàkkaarloog moom tax may bañ a ñëw lii ma nekk it oma ci sikki sàkk ba tax may ragal a jàkkaarloo ak boroom xam-xam yi waaye nag xam-xam dañ koy fekki waaye du fekke sëriñ Bachir nee na xelum Lat Joor daa mel ni daa mujj daa jeng jëm ci bëgg eh, teg sëriñ bi fitna waaye sëriñ bi yàlla mi mi ko aaral boppam moo ko fegal fitna yi Lat Joor jooji ne na ba diggante Lat Joor ak tubaab yi am rëng-rëng ngir doxoon seen diggante njàqare loolu yi ñëw not njàqare yi amoon yépp ba Lat Joor telatu ko waaw sëñ Basiir bi ma waxee loolu nag taarix a ngi nii nag mooy delloo si boppam toujours daal lii mooy la xewoon ca Muhammad ibnu Ismail al Buxaari ndax buuru amirul Buxaara dafa sàkkoon ci moom ni ko dama bëgg nga indil ma saxiix bi waaye Buxaari yu tontu ko ni ko duma toroxal xam-xam ci di ko yóbbu fenn ko yóbbu ci bunti buur yi buur bi génnee ko dëkk bi Buxaari yu ñaan ko yàlla ay fan la am ñu coup d'état ko waral ko ci kaw mbaam di wër moom dëkk bi noonu lañ ko tëjee ba nim faatu mboolem ña ko doon jàppale ku ko ca jàppale ci loolee mun a moon rek yàlla nattu na la sëriñ Bachir ni lool yi nag mooy li xew ci diggante sëriñ bi ak buur boobu muy Lat Joor ak ñi ko doon jàppale mbooleem ñi nga xam dañ daan feeñal ak mbañeel seen diggante sëriñ bi di ko jéebtaane di wax ci biir mbooloo naan xool leen rek ndeeteet lii di tantanlu ci kanamu tan mu mag mi mag a mag te booba lam jublu mooy xaad yi mooy tan mu mag mi li tax mu àtte ba noppi sëñ bi di ñëw di ko firi am na koo xam ni noonu la daan reetaane sëriñ bi di ko sabote Lat Joor ba tey noonu la amee woon rakkam ji jigéen joo xam ni ñi daan sabote sëñ bi ci la bokk waaye kenn ku ne ci ñoom rek sëg mujj rafetut ndax Lat Joor ak la ca mujj daanaka dafa continuer rek di am ay tolof-tolof ay xew-xew yoo xam di gën di dolliku naka noonu sëriñ bi di gën a dolliku ay leer mbooloo mi gën a jëm si ci moom àdduna itteelu leen dara dox seen diggante dara mënut dox seen diggante sëriñ bi ba ni Lat Joor faatoo moo sàmbalaw bi mi mujj ci buuri Kajoor te euh, colonialiste yi rey ko mujj rek mënuñu koo tal daal seen bopp lañ gënoon tal ci moom ngir problème boobu yi leen gaar problème bi gaar Lat Joor ba tëlatul mbirum sëriñ bi jafe-jafe am digganteem ak tubaab yi ba mënatu koo dékku ci la gàddaayewaat dem Saalum yoonu ñaareel bokkut ak gàddaay gu jëkk gaa jëkk jëkk nga ko maa jooja dàqe woon waaye dafa dem ba yëf yi xat ci moom lool jafe-jafe yu bari moo ci la gàddaay waa dem Saalum ànd ak mbooloo ànd ak ay surga ànd ak waa këram ñu sax ci ab ca Saalum ab diir waaye foofu it amuñ fa ku dul Saïd Ba Saïd Ba doomi eh, Malick Bala Maba Maba Jaw mooy Malick Ba mooy Maba Saïd ba képp moo fa ànd ak ñoom ndax ci moom la moom la jaayanteeloon ginnaaw ma ba waaye Saïd ñi jaayanteek moom mooy ñi toppoon baayam te jóge feneen gàddaayee ci diggante Kajoor ak Bawol ak ak Jolof ko gi ak ñu néew ci waa Saalum nag waaye ñu bari ci waa Saalum dañ ko won gannaaw te ka jiite mooy euh, taalib bépp maba ba fa gën a mage ñu di ko wax Barane Cissé tam bokk ci ña am doole foofu lool ci réewu Saloum yooyu tax na ba mu wonee gannaaw Saïd mbooloom Saloum Saloum mépp woon ko gën a daanaka Saïd daal lam fa dese mooy ña gàddaaye woon feneen ànd ak bàyyam ñëw waaye nag mbooloom bare bari lañ Lat nag bi mu xamee ni waa Saloum gépp Saïd ba képp la fi am yëf yi di daal di nëx ci moom ndax suuf si day xat ndax bu ñu xasee génn fii rek ñu gis ñëpp seen noonu lañu àndu ñoom te li leen doon arrangé mooy ñu mën a dëppoog suuf su dëppoog waa gépp waaye bu ñu ca amee ñenn am béréb yu ñu fa mën a dox ya ca des mënuñ faa dox rek di daal di xat ci ñoom ndax tëmuñ lool foofu nag euh, fi la. mbooloo mi xaajale ko ñaari xaaj ñenn ñi ni ko nag léegi fokk nga dellu kajoor benn nga xeex ak tubaab yi mbaa nga jàmmoo ak ñoom waaye fii moom mënee su fi nekk ndax dafa xat xalaat boobu Lat Joor nanguwu ko kon def na ñaari xaaj léegi ñi xalaat nañ dellu kepp keppay dëgg moom nanguwut xalaatu dellu gi ñu daal koy wor bañ ko waree ànd ak jarbaatam bu ñuy wax Sàmba bi Sàmba Lawbe moom nag lañu àndal dellu kajoor dem jàmmoo ak tubaab yi daldi koy fal buuru kajoor sa booba Lat mi ngi Saalum Lat Joor des Saalum ba foofa metti ci moom mu delsi waaye bi mu bëggee delsi kajoor it colonialiste yi bañ ne suufu si kajoor moom du fi dugg mu des nag moom lajoor di wër di seet pexe saa ma nga Jolof Yisaa mu nekk diggante Kajoor ak Jolof ci wetukaay yu mu daan wét foofu dema dema dem ba yokkat mbir yi am xelam delsi ci moom gannaaw bu ko ay surgaam ak i dagam yépp wore ak i mbokkam eh, jeng dem jàppale ji Sàmba Lawbe ab jarbaatam Euh, ñoom ñëpp ñu ànd takkutoo dem mm, ànd ak nguuru tubaab yi euh, kenn desul ànd ak euh, Lat ku koy défendre mu mel ni laaf yim daan naawe daal damm na léegi mu jaaxle lool des ak ñu néew ci waa këram ñoo xam ne ay gor lañ la leen fa bàyyi mooy gore ak fàttaliku démb bi mu ba am xelam jël si nag mu mu mu xalaat xalaat jullit yi xalaat ceddo yi kum ci war a diisool gisul kenn ku ko xelam jox gisul kenn koo xam ni biiram set na wecc ci ay farfarlooy àdduna gisul kenn koo xam ni ab xolam jàpp na dara ci xëccoo ki bañante ak sàkk sàkku kilifteefu àddina ku dul sëriñ bi sëriñ bi képp daal la gis ci koo xam ne xam na ni yàlla kese kese kese moo nekk ci xolam amul lenn lu muy jàpp wax ci kaw di jàpp leneen ca suuf amul fenn fu muy demit di fa di ko fa reetaane mbaa mu di ko fa sabooti naan bàyyi ko rek nangam ak nangam comme ni ko nit ñi gisee moom képp la xelam dal ci ni na diisoog moom ba xam lu mu gis mu dem jàmbat ko li xew ci waa ak njabootam rawatina nguur gi ñépp niñ ko wane gannaaw ni ko dañoo tàkkatoo jàppale sama jarbaat ñu dem négocier ak tubaab bi léegi nag man am naa ak jaaxle dama lay laaj ba xam ndax dama war a gàddaay dem ci réew yu sore sori ngir sàkk foofa kàttan gu ma jàppale ngir ma mën a delloo si nguur gi ci samay loxo walla damaa war a fexe ba lijjanti ci waa réew mii ñu ma jàppale ba ma xeex ak ñoom ba jotaat ci nguur gi wala euh, nu may def daal nu may def daal xalaat daal laa lay laaj waaye sëriñ bi tontu ko euh, te booba xarit yeeg noonu yi ñëpp doyloo nañ ko waaw ndax sell gum sell diggante ak borom ni ko man de lii sama xalaat ci ku àdduna woon ginnaaw mooy nga woon ko ginnaaw bàyyi waa nguur gu yees gii ak seen àdduna ndax na nga xam ni force bii fi ñëw kat muy doole ji doole ju ñëw la joo xam ni dara mënu ko dëpp lu dul sunu borom mi ko fi indi waaw te ku am xel ku ne yit doo jéem a xëccoog ñoom ndax ni ñu la ëpp doole ëpp na ni ko sa këri bopp ak sa ngóoru bopp gi ci àdduna la bokk bu la wane gannaaw wan ko gannaaw ni ko man nag mën naa laa dogul ni la boo bàyyee mbooloo mi gàngoot gi ñu dem nga bàyyi ngànnaay yeeg fas yi yépp des fi yow képp def ni sa mbokk mii def danga am lu gën ci yow ci sa diggante ak sa borom te danga nopp it ci mbiri àdduna yi ak njàqari àdduna yi def ni sa mbokk mii mooy Ibrahima ko def muy jaayante féeteeg yàlla te bàyyi nag kërëb kërëb bi àdduna yi laajoon ni ko li nga wax dëgg la wóolu naa ni mooy li gën mooy li gën a yaay waaye nag diis na ci ku mel ni ma nit mu dekki-jekki génn ci àdduna ku yël banding rek ba sa ci wecc waaye nag léegi li ma doon xalaat lépp léegi dañ na ci sama xel léegi li ma doon yaakaar it eh, ni nga ma yee jàpp naa sa labiré yi nga ma labiré léegi kon dootuma waxate ak yow ci dara lu dul lu may jariñ fa sama borom alaaxira ak loo xam ni dana ma ràmmu ëllëg rekk kon nag nag ma dimbalee jox ma benn tur yàlla bu may sikkar ak ku ñaan ku may ñaan loo xam dana ma jariñ ci sama bàmmeel te jox ma sa yére yi bopp loo xam ni su ma faatoo moom la ñu may sànge te bañ may fàtte ci sa ñaan nee sëriñ bi digal ko mu wattu ak ñaan loo xam ni moom moo ko defoon ci ay istixfaar moom sëriñ bi moo ko taalifoon ay jéglu yu mu taalifoon jamono yooyu euh, jox ko am mbubb it Lat Joor tàggu moom ba mu tàggoo moom ñaari semaine rek lañ ca teg bu armob eh, nguurub nguur gi fàq ci kawam booba lu ëpp ci waa réew mi ci niti boor yi réew yi eh, ci këri boor yi ña nga ca lu fàq doon ko wër mu xeex ak ñoom xeex bu tar waaye ab diir bu gàtt la am rek eh, jam-jam yi wër ko fu ne mu daldi daanu wàcc fas wi daal di faatu waaye nag déngi déngi wut ci taxawaayam euh, mi ngi jàkkaarloo ak noon yi ngir amoon yéene dee ci xare yéene dee ci jihaad moom la amoon moo tax wonu leen ginnaaw ña ngi ko reyee fa teenu déqale loolu bisub àllarba la euh, ci atum junni ak ñetti téeméer ci gàddaay gi ñu denc ko ci bàmmeeli déqale yooyu loolu mooy mujjug mbirum Lat Joor lii ñuy wax lépp nii donte bokkul ci histoire du sëñ bi dañoo ànd dañoo roofaloo ba nga xam ni déggaale ci eh, jikkoy waa Sénégal ak seen doxin ak la fi nekkoon jamono sëñ bi lu am solo la dina tax mënees a dégg dëgg-dëggi sëriñ bi loolu mooy mi mu jóg mbirum Lat Joor bo boo boo kàngam boobee nga xam ne nag moo daan saboote sëñ bi moo rakki Lat Joor ju jigéen jooju may wax ñoom itam seeni mbir eh, fa mujj bu dee kàngam boobu te mooy képp kook yi bokk ci eh, dagg yi sësuñ ci Lat Joor dafa gudd fan lool ginnaaw Lat Joor ba benn bis sëriñ bi romb ko boobu mi ngi ànd ak bu bari ay talibe yu bari ñu ngi sikkar ko rombee moom moomee booba ndeysaan mu ngi nekk ci e, pindub ab teen di wëggal ay nagam yoo xam ni amul kenn ku leen di sàmm ku dul moom moom ci jëm bopp mbaa doomam daal ñoo leen di sàmm mu sol yére yu ràpp bi ko sëñ bi rombee mu xàmmee ko dafa daldi lem goj ba daldi daw ngir mën a nuyu sëñ bi siyaare ko yërëmtalu lool rakki Lat Joor jooji it moom itam sëriñ Basiir nee na dem naa ba gis ko muy ñëw ci buntu kër sëñ bi ak sunuy buntu kër ak buntu kër yi murid yi delluwaan ginnaaw bi la tuub ci loxol kenn ci talibe yi jébbalu jébbalu mbooloom ba njabootam gépp jëblu waaye sëriñ bi moom yàlla daf ko binde mu doon ko am yërmande ci xeet wi doon ko am ñeewant ci mbindeef yi mësta rëcc ci aw làmmiñam mu ñaan yàlla kenn xanaa loolu luy sun borom dogal la ci ñoom da daan muñ wakkiirlu ci yàlla di won gannaaw seeni lor ba noppi dencal leen nag ak ñeewant di ñaan yàlla mu gindi leen comme ni sang ba waxe sallallahu alayhi wa sallam e, allahuma axfir li qawmi fa innahum laa yaalamun ndax yonente bi moom dafa ñaanoon yàlla yal na nga jéggal sama nit ñi ndax dañoo xamul rek waaye sëñ bi it mësta wàcc taxawaay boobu waaw nag léegi ku doon laaj nag dëgg dëgg li sëriñ bi woote mooy lan ba muy jàngale ba mu jàng mu ne ku fi njàngaleem kese kese andi woon demal seete foo jànge ku bëgg li ma bëgg nag ñëwal topp si ma Euh, ku bëgg a xam dëgg dëgg li mu woote mooy lan li mu woote dëgg dëgg dëgg mooy sellal sellal daal la jublu woote sellal sellal nag mooy ruug jëf jëf jum mën a doon sellal mooy ruuga jëf jum mën a doon ku doon fanaane naafila di yendoo woor jàng xam-xam ba jeexal téere yépp te ak sellal amul ci yàlla di ci du nangu dara moo jëmm ju amul ak ruu ñooyam foo ba ma xamul daal foo ko wér ci dara kon ak sellal rek la jublu woon a woote sellal mooy ruug jëf sellal mooy résultat xam-xamu borom nit nit yàlla yi xam-xamu nit yàlla yi nit yépp li résultat bi mooy sellal ak ci maqaama sellal sellal ci la nit ki mën a amee ak egg ci yàlla egg ci yàlla mooy lan egg ci yàlla mooy jaam bi dem ba set wecc set wecc ngir jëm yàlla lu muy def buy yëngatu yàlla tax muy yëngatu buy dal yàlla tax muy dal pas-pasam yépp yàllaa ko fees dell ay waxam yépp yàllaa koy fees dell ay jëfam yépp yàlla ngir yàlla kese kese kese lay doon ay mbiram yépp ngir yàlla kese kese lay doon zaahir ak baatin lool la ñuy tuddee egg loolu nag dafa mënta ame ci njàngalem kese kese kese ndax jàngalekat bi daf lay won aw yoon rek yoonu barab sàngam laa jëm mu ne la yoon waa ngi nii ndakaaru laa jëm wala ndakaaru nga nekk jëm si Touba mu ne la yoonu Touba ngi nii la ca des nag ka ñuy tegtal mooy seet ba xam dana àgg wala du egg jàngalekat bi foo fii la yam ak ki muy jàngal sëriñub tarbiya niñ ko mën a misaale dangay laajte yoon wa mu jàpp ci sa loxo ni la nañ dem baa mu ni la duggal ci oto bi ñu dem ndax dala dul bàyyi ndax day am war-war yu mu war li nga war a def bu fekkee ay sikar la ay julli la jàng alxuraan la joxe la dindi ci yow ak nay la dindi ci yow ak rii la yooyu yëpp nii daf koy waral ci yow di la ci force di la contrôler ba xam yaa nga ca di xool ba xam jéego yaa nga ca dox fekkee sàkku xam-xam la dala ci forcer bu dee jàngale la mu jox la ca ndigal nga di ko def mu di la contrôler wax yaa koy defam déet bu fekkee ay sikar la bu fekkee daf lay liggéeyloo bu fekkee ay joxee joxe addiya la ginnaaw buñ bum bu mu sosee sa mbir ci ak ragal ci ak ak ak eh, ak cofeel cofeel gu set ci nga xam ne ngay bëgg yàlla seexum rabbi bi boo àndeek nit ki ci noonu du tàggook moom te du dem na bax li feeg mu koy xamal ay bi boppam xamal la it nooy laabe ci ayib jooju dana fexe ba xamal la sa ayib bopp xamal la ni ngay sete ci ayib jooju loolu yi mooy tax mu mën laa eggale ci yàlla ci kàttanu yàlla ak ndimbalu yàlla moo tax sëriñ bi bi ñu ko digalee mu yar ay taalibeem ci itte ña ña ña dëppoog moom dëppoog moom ca lam woote dafa ànd ak ñoom nag ci ngirum tàggat tàggat leen ci xiif xiif bu tar liggéey bu bari sikar su bari ci laa ilaha illallahu ak jàng ay xasida ak saxoo laab ak beru nit ñi rawatina nag jigéen jigéen ñi nag lañ gënoon di moytoo jaxasol ci noonu la sax moom sëriñ bi ci njëlbeenu atum assasine te mooy 1301 ci foofii ci Mbàkke Kajoor noonu da ci wéyee ba nim sañcee Mbàkke Bawal xaaje murid yi it jamono booba ñaari ñetti xaaj lañ benn bi mooy ñi nga xam ni dañ ko doyloo ci seen dañoo ñëw rekk ngir siyaare si Eh, di sàkku mu laabiire leen bu ñu siyaaree sàkku mu laabiire leen mu jox na ak laabiire ñu dem seen yoon ñoo benn bi ci des dañ koo doyloo ci seen bopp kon du ma ne sax ñetti xaaj la waaye ñaari xaaj la benn xaaj bi nag moom lañ xaajaat ñaari xaaj benn xaaj bi mooy ñi nga xam dañoo ñëw di siyaare di sàkku ay laabire di dellu beneen xaaj bi ci des ñu xaajaat ko ñaari xaaj ba muy nuru ñetti xaaj mooy xaaj bi nga xam dañoo yëkk dañoo ko doyloo ci seen jëm bopp jox ko ko bu ko fi ñoo ñu la xaaj ñaari xaaj ñenn ñi di leen liggéeyloo ñenn ñi di jàng alxuraan baa ñu jàng xam-xam ñetti xaaj yooyu ñoo fi nekkoon mu doon diina ju leer nàññi waaye nag lam jubloo def ci nit ki njàngaleen kese kese kese kese daf koo mënut moo taxoon mu sóobu ngir moom mi te it lu ko sun boroom baaxee la yenkiwal ko ko sol ko ko mën loo ko ko boo defee ñoo ñi nga xam ne nag dañoo ñëw ngir tarbiyewu si jox ko seen bopp bu wóor wàccandi ko moom mooy xool kenn ku ci ne la gën a yell ci ay mbiram mu sóob ko ca ñoo xam daa sóobook ñoom yoonu euh, tarbiye gu tar ci feral sa bakkan ci xeeti bànneexi àdduna yépp ak dëddu luy nuru daraja ak alal ak sax dàkk ci jëf ju baax ak sellal yéene ci lu mën a doon jamono bu ne ngay nattale nattale jublukaayu sharia jublu jublukaayu sharia yi ak xikma yu sharia ci mbir mu mën a doon ndax sëriñ bi ku réew mii fi ganee àdduna yaroo fi génn ko xam ko lool xam nit ñi it qualité ni ñi leen a xam xam jamono xam na nit ñi nit diine ñàkk a xóote ci ñoom maanaam nit ñàkk a xóotloo ci xam-xamu diine ndax booba ak réer dafa tasaaroo ci àdduna bi jikko yu bone tasaaroo fi moo tax la la la muy la mu leen di jëkk a defloo ci li ko xekk maam jox ginnaaw bu ñu saxalee warte fi diine yi ak yi diine sopp ba noppi mooy liggéey liggéey ci yaram liggéey liggéey ci liggéey bu bari ndax tayeel mën a wàññiku te tayel booba dafa tasaaroo dafa daanaka mooy ba fii nu toll sax tayel lu nit ñi ñàkk moo leen ko xañ moo fi mooy yàq gi fi gën a bari te tayel gépp yàquteeg adduna mbaa yàquteeg diine ci tayel lay bàyyi ko moo tax sëñ bi ngir tayel googu dañ da leen di sóob ci liggéey bu tar ginnaaw bu bu war-wari diine yi jàlle ak rëy ak yéem sa bopp it dafay dafa doon lu sax ci xole ñu bare bare bari ci waa réew mi ngir seeni tabia noonu demee yi muy xëccoo ci rëy rëylu ak di ndamoonte ci ay askan waaye nag bu leen tamalee liggéeyandoo bu ñuy dugg di duggandoo bu ñuy wàcc wàccandoo bañ caa ràññatle kenn ak kenn xamut doomi diw xamut doomi diw ñépp yam ca ci biir loolu mu jublu leen a jàngal ak yamoo ci diggante nit ñi nga xam lay ràññeetal diggante nit ak nit ngëneel lay doon ngëneel lay doon suñu def ci jëmmi jikkoy nit ki walla mu def ko ci jëf joo ju rafet joo ëppale sa morom waaye du doon lu ngënanteeg askan moo tax daanaka liggéey bi ñépp yamoon di xëyandoo di wàccandoo nit ki kon mi ngi gënee moroomam ci jikko di ko gënee ci jëf ju baax ju ko ëppale di ko gënee ci num ko num soree lu bon ci biir loolu dana leen dégtal ni leen ndekete baatu ragal yàlla bi ñuy wax benn baat la boo xam ni dafa dajale mbooleem jikko yi ñu sant jikko yu rafet yi benn baat la boo xam ni bu xasee nekk ci yow dana dox sa digganteeg mbooleem jikko yu ñaaw yi léegi taqwa bu ñu ko waxee mooy sori yu ñaaw yépp yu rafet yépp yi nga dajale ko di ko jëf mooy topp ndigal yàlla yi ak bàyyi tere yi ci diir yi ñu noppalu bu ñuy liggéey liggéey bu tar boobu diir bi ñu noppalu mu di leen jox ay xikma ay waaraate loo xam dana leen wanal dana leen wan seen ay bi bopp mooy lu mel ni li ma waxoon léegi rek tomb ay tomb ni bu ngeen xëyatee na ngeen jiital jàmm yàlla teg ci nangoo liggéey def seen naqar muy seen bànneex def seenu coono muy seenu noflaay di wettalikoo ndigal yàlla yi te bañ a jëm jàppe ndigal yàlla yi muy ab sëriñ te bañ a jàppe aw sant muy ab sëriñ ku nangoo ku bëgg a tedd fii ci àdduna da ngay nangoo liggéey ku bëgg texe taxe ëllëg da ngay nangoo jàmm yàlla façon waaraate yu mel noonu ak tomb yu mel noonu ak leen leeral leeral yu gàtt yoo xam ni lu ñu waroon a jàng ci téere yi diir bu yàgg-yàgg mën na ko tomb ci ñetti tomb leeral leen ko am na tomb yu mu daan tomb di wax ni diina ñetti képp la waajib la ak man doob ak mu baax dal dina xam ngeen lan mooy seen waajib yéena bu ñu ne déedéet mun li leen eh, wàcc lal yi te dem ci der yi ndax ab tëre ngi ci kanam boo xam ne buñ ci àggee day eh, nit ku ne da nga tëdd loo bëggoon a tëdd da nga tëdd it loo bëggul woon a tëdd xam ngeen luy seen man doog ñu ne ko dee mun leen wàññandi ko ndam yi ba ñu ne démb la woon xam ngeen lan mooy seen mu baax ñu ne ko dee mun leen dara dara dara dara ju jëkk ji mooy yàlla mi ko xam ci moom dara la muy tere doo ci def dara daray ji mooy àdduna mi ko xam ci moom dara doo ko fàggul dara ngir dara du fi des daray ñetteel ji mooy àllaaxira mais ko xam ci moom dara doo ci def dara ba naw ko ngir dara du fa doy léegi façon waaraate yooyu ak tomb yooyu moom la sëriñ bi soppee woon njàngaleem fab ay téere di tëral buñ noppee nag ba mu dugg seeni xol mu yabal leen ñu daal di wéyaat ci noonu leen daan yare di leen tarqiye ci e, ñuy takkaayoo takkaay yu mat takkaay yu mat mooy sellal seeni jikko ak laabal seetal seeni xol ak leeral seeni xel ci it seen it jëpp ñu dajale ko ci yàlla jamono bu ne it mu di leen joxañ tuub ak jëm ci yàlla fab seen lépp jëmale ko ci yàlla ak dëddu àdduna ak rafet rafeti àdduna ak bëgg ngir jëm yàlla booy bañ ngi ngay bañ ci jëm yàlla ak fab sa xol tëj ko ci xalaat ci mbindeef yàlla yi saw làmmiñ nga tëj ko ci tudd tudd yàlla say cër nga tëj leen ci topp yàlla ci kasoog topp yàlla duñ ko génn loolu yi nag bu ci nekkee ak ñoom ba loolu yi jaxasoog seeni xol ba loolu yi mu leen di di jëme not leneen lu dul moom ci ñoom léegi nag mu daal leen di yabal kenn ku ne mu am liggéey ba mu lay liggéeyloo kenn ku ne mu xool la gën a la nga gën a war a man ci liggéey mu def la ko ka mën a jàngale mu jàngale loo ko ka mën a jàngale alxuraan mu jàngale a jàngale xam-xam mu jàngale xam-xam ka mën a yor tool yi di liggéey dugub ju bare bari mu féetale ko ci fànn googa lépp delloowaat ci maslaxi jullit yi rek lii mooy dëgg-dëgg ngir mi daan woote ànd ak nag di leen fuglu fuglu tara taratar ak critique bu tépparle tarbiya critique bu tépparle laaj ci mboolem yëngutu yi ak la ñuy tekkiral lu ci wuute ak ci wuute zahiru sharia mu daal di jàjj def lu ci wuute ak teggini tasawuf mu daal di jàjj yeete ci fii la jàdde yoon wi nii la waaye loolu ku ci bañ ci tarbiya sax la ngay def du mën a sotti fokk da ngay jaxasoo ñi ngay tarbiya di xool jiitu leen di jëf ba noppi nag lépp lu ñu wa saa bu ñu wàccee yoon lu mu gàtt gàtt lu mu tuutul rek nga leeral ko moo tax sëriñ euh, Saalihu daana wax ni yoonu murit yoonu ñëw leen nu dem la waaye du yoonu dem leen ma ñëw lépp nag mu teg ko ci ak diggu doomu ci diggante sharia atab sharia ak fugluk xaqiiqa digg doomu ci diggante ñaar yi benn du ci ëpp benn du ci sabsaagal kon loolu mooy première tërbiyeeg sëriñ bi loolu mooy lim woote woon loolu mooy lim daan jàngal murid yi ci njëlbeenam noonu la wéyee ba nim toxoo Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawal noonu la wéyee ba nim toxoo Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawal loolu mi ngi ko tàmbali woon ci atum assassin njëlbeenu atum assassin mm, muy tolloog 1884 mm, at la fa am daal di tox si Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol am na fa ñaari at lépp nag mbooloo maa ngi fàq di ñëw wet gu ne nit bàyyi ko fa ak nag yeneen di tax a jóg nag ñii dañoo bëgg ñëw aju si ci moom ñii dañuy indi hadiya ñii dañuy sàkku ndimbal mu mujj yoonu këram mujj mel ni yoonu marché ci diir boobu yi ci la sañce daru salaam daal toxo ndax daa mujj nag diir boobu it eh, ay xat-xat yu bari am digganteem ak mbokk yi ndax ñàkk gu ñàkk a miin doxin wi muy doxe ñi di ko bu ndoxataal ñi di xeex ak taalibe yi ñi di leen jam lu ne ay xew yu bari am na fa ba tax daanaka loolu bokk na ci li tax mu sañc daru salaan toxu fa muy randu mbàkke tuuti rek toxu noonu ci atum ci njëlbeen ko atum dasasin muy 1304 tolloog ci ati e, judduka Isa 1886 daru salaan googu ne dafa daan jógee ba tey e, di dem di wéet ci àll bi moom képp di wéet ngir jaamu yàlla ak deyaat ak boromam ci xur yi xur yooyu xur xur yi dend ak moom bu ko defee ab diir dellusiwaat ci njaboot gi ci Darou Salaam foofu nag ci biir loolu ci la Touba sosoo ndax dafa am benn xalwa muy wetaay wu yàgg wam dem ci àll bi woo xam dañoo mujj nag njaboot gi ak taalibe bii ñëpp dañ cee mujj jaaxle ngir yàggum yàgg ñu jóg nag ni fokk ñu gëstu ji ko gëstu boobu nag ay Euh, nettali yu bari yu wuute am na ci ca jan jëmm moo ko euh, doon seeti wala jëmm ya ko doon seeti ba gis euh, ba fekk ko fii ci dëkk bii ci béréb bii mu nekkoon te mooy Touba tey waaye nettali bi sëriñ Moustapha Abdourahman Lo nettali moom lañ tànn moom lañuy tànn indi ko nee na ña ko doon seeti mat nañu fukki nit ak juróom fukki nit ak juróom ñoo jógoon ngir di gëstu ji sëñ bi ba fekk ko fa nekk muy Tuubaa tey ñooñu ko doon seeti dañoo gànnaayoo ay xeej ñi yor ay jaasi ñi yor ay fetal dugg ci xur ba dajeeg benn rëbb bu ñuy wax buuba ja euh, bañ ko ko laajee mu tegte leen di leen ron bépp gële di gisoon naa fa benn waay bu mel ni ngeen wax da ànd ak ñoom jiitu ñu topp ci ginnaawam bañ seen euh, jëmm ji bi ñu ko gisee lañ xam ni jëm sëriñ bi la ñu daal di bóof ginnaaw buñ nee tekk ab diir sëriñ bi woo leen waxtaan ak ñoom wax leen ni leen euh, li ma bëggoon diir bu yàgg ba tey euh, sunu borom may na ma ko mooy pàkk bu laab bu ma doon gëstu di ñaan yàlla mu may ma ko ngir ma mën faa wér dafa jàmm yàlla may na ma ko mooy fii ngeen nekk tey daal leen di jox ndigal ñu dellu daru salaam ngir indi ay jumtukaay yoo xam ne danañ ko fi mën a euh, taxawalal këram fukki nit ak juróom ya ko doon wër moom la euh, seeni tur moom la sëriñ Moustapha tudd seeni tur mooy ku ñu wax Omar Jalayaabe ak sëriñ Jori ma Malamin Njaay Ahmadou Guèye sëriñ buso Bousso sëriñ Masamba Bousso Adama Sàll sëriñ Mayasin Ummi ak sëriñ Ahmadou Muxtaar Jeng ak sëriñ Muxtaar Pend Jeng sëriñ Daam Abdourahman Lo ak sëriñ Ajara Mbàkke ak sëriñ Momar Mbay ak Ibrahima Jeey ak ko ñuy wax Omar Soose ñii la wax ni ñoo àndoon jëli ngànnaay di wër ba gis sëriñ bi ñoo ko jëkk fekk ci béréb bii muy Tuubaa googu bañ ko fa fekkee mu jox leen digalul dellu Daru Salaam euh, jëli ay bagaas yoo xam ni danañ ko mën a taxawalal kër fii loolu mi ngi amee woon ci weeru euh, léegi nag ñu tàmbali liggéey bi ñu jëli bagages yi tàmbali liggéey bi ci weeru muharram ci atum wasasin te mooy 1306 euh, ci gàddaay gi tolloog 1888 liggéey bi mi ngi mat ci weeru Shaabaan mu doon kër gu yaatu goo xam ni euh, gudde na euh, juróom-ñaar fukki mètre yaatoo juróom-benn fukki mètre ginnaaw bu liggéey bi àggi la fa sëriñ bi ànd ak njaboot gi toxu si fa muy toxu si Cheikh Ibra Faati ma nga ca Cheikh Ibra Fall ma ca ak fukki taalibe ak juróom-benn Darou Salaam mu may ko euh, mbokkam sëriñ Gaawaan ak juróom-ñeent fukki taalibe juróom-ñeent ca ña euh, jaayante woon ak sëriñ bi ginnaaw bi mu agsee ñoom ñëpp da leen boole leen ak Serigne Gaawaan foofu ci Mbàkke Bawol ginnaaw bu sëriñ bi saxee Touba la tàmbali di so sañc yeneen kër darul xudduus mu sañc ko ngir di fa deyaale ak boroomam ak bind ay xasida ak di fa defee yennati xalwa di fa wéet darul mën naan sëriñ bi sanc ko daan fa def euh, di def ngoon gu jot mu dem fa toog fa ba mu guddi mu dellu si Tuubaa fanaan si fi darul rahman te mooy fii sëriñ Sohaybu bu nekk tey euh, sëriñ bi sanc ko ba tey daan fa euh, dëkkal ay gan gani sëriñ si ak boroom xam-xam yi dañ ko wax naar ngir dañuy wax ni dafa daan dalal ay gani naar sëriñ bi digal ñeent ci taalibe yu mag yi ñu sanc ay kër yi tarbiya ci peggu Touba digal sëriñ Cheikh Ibra Sarr Njaañ mu digal ko mu sanc ak kër ci ndijoor sëriñ ma sàmba Jóob Saam mu digal ko mu sanc ak kër ci càmmoñu Touba sëriñ Ndaama Abdourahman mu sañ digal ko mu sanc ak kër ci penku te mooy ndaamaatu Cheikh